mbokk yi dal leen ak jàmm ci biir limametti point com comme à chaque fois nag ñu leen indi li nga xam ne moom moo leen di béggal ci biir limametti point com tey nag ñu am ay invité invité yoo xam ne invité yu spécial lañ nekk ay jeune talent di liggéey ci li nga xam ni euh, moom mooy euh, musique di ci def liggéey bu am solo euh, kenn ki mi ngi tudd Prince war ngeen ko sax xàmmee ki ci des aussi war ngeen ko xàmmee mi ngi tudd Iblo ñoom nag lañ dalal tey eh, ci biir limametti point com war a sekk ak ñoom waxtaan eh, bu yaatu dañ leen di bàyyi d'abord ñu daal di nuyoo ak mbokk internet yi ñu doog a jàll ci waxtaan bi. maa ngi lay fay soxna si maa ngi lay bu baax ah. di nuyu internet yëpp ah, internet limametti point com yëpp Sénégal ak yëpp bàyyi ma kenn ah, suñu papa suñu yaay suma rakk yeeg suma mag yi nuyu naa ñëpp di la ziar waat yow bu baax a baax di kontaan ci invitation bi di suma frère Iblo di nuyu aussi tamit Lamina mon manager. Euh, di siyaariwaat ñëpp yàlla na ñëpp am jàmm. voilà ñu ngi lay fay di la dalal bu baax euh, ci biir metti limametti.com euh, presse kenn suñu beneen invité bi nag moom aussi nekk frère ki nga xam ni moom mooy presse di ki nga xam ni moom mooy Iblo moom tam dañu koy bàyyi mu daal di nuyoo ko ñi nga xam ne ñoom ñooy mbokk internet yi. salaamaaleykum salaamaaleykum hello hello I am Iblo yeah from Guédiawaye bad boy comme ni ko gars yi xamee maa ngi lay nuyu soxna si. di nuyu mbokk internet limametti point com di nuyu waa Géejawaay di nuyu waa Kaolack di nuyu waa marché Sam maa ngi nuyu ñëpp ah bàyyiwuma kenn meelu waa koñ baak waa marché Sam ko sareet yeeg ñëpp ah ñëpp ñëpp ñëpp di nuyu sama tonton aussi tonton Lamine suñu ménagère suñu lépp di nuyu waa Papa Bile ah di big up gaa yëpp ñëpp maa ngi nuyu daal ak ñi seetaan yeah watch popping. Prince lan moo la dugal ci waay. dalee artistes yu bari. depuis puis, ñu gën a nekk ndaw ñu nekk ci di ko di wayantu xam nga boo nekkee xale boo amee sax baat bu neex des des fois doo ko doo xam léegi bu ko defee nit ñi ñoo koy ñoo gis xam yow macha am nga voix bu neex donc ñoo li siy dama doon nekk di wayantu comme nit ñi si ñi si ñëpp jaaree ah bon ba yàlla dogal am benn compétition bu ñu naan seen petit gàlle ma jaar fan 2015 dem fa samay samay samay morom yu ma daan fool dama doon toog di wéyantu seen biir xam nga ñu ne ma pourquoi pas nga dem si présélection Petit Galle tenter ce chance donc euh, ci laa ci laa ci laa ci ci laa ci duggee suñu borom def ma représenter la région de Kaolack dem ba ba ba demi-finale ci noonu noonu après la commencé di teg ay pas aussi tamit comme Ibou ni mu ko waxee sànq yàlla dogal ñu dem nekk ci benn groupe maak moom ñoo fa nekkandoo woon après suñu borom tamit dogalaat ñu génn fa waaye ba léegi ñu ngi continuer suñu carrière groupe boobu sax nekk The Best Family ñu bëri eh, xew ràññee woon leen fa eh, mais dañoo gis d'abord sax balaa ñuy ñëw ci loolu nan ngeen def ba intégrer li nga xam ne moom ma groupe The Best Family. bon man moom pour sama côté euh, bi may xamanteeg euh, The Best 2017 la woon euh, dañu ñëw après boobu maa ngi ñëw si studio am nii ñu toog benn jour ñu toog avant avant ñuy toog sax dafa contacter benn benn su benn frère. ne do mo soxla wali bon ñu ñëw ñu tok ñu waxtaan mak mom boobu ñu ngi toog si cours bi mo may expliquer projet de Best Family man mom ak suma frère boobu la ma lay wax ni ñoo toog mu expliquer projet bi genre de demee noonu après mu expliquer ko carrément ne ah waaw nice demee actuellement dama nek di jang genre légui da may may suma ma man suma ma fekk ma ngi jangé kaw la quoi bu ma demee léegi doo am ben problème ci bo mo woy ñu wara liggéey dina bàyyi dina def demande daggatoo man dagg tike ñëw ñu liggéey li liggéey ma delluwaat par la suite noonu la woon ñuy def noonu ñuy def noonu ba après ma ñëw intégré ci biir ci biir kii bi nekk ci projet yi ba euh, yow Prince ñuy gis ngay ngay jëngu ci wàllum rap lan moo tax nga choisir déjà boobu noonu waaw bon xam nga man moom dama nekk nit koo xam te nii du ndamu sax dañ naan saabu du fóot boppam nit koo xam te dafa direct et hip hop nekk na musique boo xam te nii ñi si nekk dañoo honnête te dañoo dañoo direct quoi boo hip hop c'est quelque chose bo xamante li li nekk yow la quoi li nekk yow et man dama bëgg di li nekk si man ma koy lolo tax mu choisir hip hop mais c'est pas question que ni hip hop kasse la yam comme rap kasse la yam parce que suis un artiste donc defuma hip hop pour samay mbok hip hopper mais je fais hip hop pour ni nga xamni ñomay ñoo té ñom luñu luñu luñu luñu lu ñu laaj et li nga xamni mom mo moo leen di bëggal rek si lay nekk tant que ñu ngi ci gis seen bopp rek incha allahu rabbi maa ngi wéy si loolu noonu. The Best comme ni mu ko laajee nan ngeen def ba intégré. non man moom avant ma fay intégré euh, comme Wali sama frère ni mu ko waxee Prince Wally man ak moom ak ak Dan damay préciser il faut que ma wax tur bi quoi Dan ñoo doon nekk ñoo doon ànd man ak Dan ñoo doon def suñu carrière après ñu gis Dan woo Dan Dan expliquer ma Dan foofu la nekk The Best moo ngi fa jusqu'à présent. mu woo ma expliquer ma ma ne ko waa ah, bon d' accord mais man de façon maa ngi sama wéy ñoom bu ma woowee contacter ma après dinañ xool comment faire pour liggéey ak ñoom malgré seen job mu ngi nice après si la ma woowee ma dem Mbour mu woo ma ne ma Zbest neen daf la soxla naa nga wax expliquer ay détails ma ne ko d' accord ma ñëw ñu wax ma proposer contrat après gars yi ne ma léegi dañuy essayer ñu liggéey entre ñun ba pare parce que bëgg nañ benn tout hip hop si biir si biir si biir musique bi si li ñuy def ñun. parce que sentir nañ ko si dañoo bëgg ku nekk indi différent façon musique pour mu mën a nice et noonu la ko yàlla defee ñu ñëw bokk mën naa ne dama fa waroon bokk daal dama fa a bokk ma bokk fa ma participer affaire yi nice ku nekk indi tuusam ba jusqu'à présent après tàkkalikoo nañ ñun ñoo ngi job suñu job ñoo it ñoo ngi job seen job donc anyway quoi yeah Hmm, fi nga daanelee sax euh, foofu laay ñëwee yaa ngi wax ne tàkkalikoo ngeen gis nañ na ngeen doon def liggéey bu am solo euh, bi ngeen nekkee groupe euh, fol fële nga xam ne moom mooy The Best mais gis nañ ne da ngeen tàkkalikoo déjà lim li ma leen di jëkk laaj lan moo indi séparation boobu. waaw xam nga ànd ànd boo gis yàlla moo koy tudd ñun ñëpp dañoo dañoo xamante bien avant mën naa ne parce que yàlla wax na wax na ne ñii dinañ ànd donc ànd boobu noonu allah kulli mënoo dund ba dee te doo mënul donc ñu ñoo àndoon et tàkkalikoo bi aussi tamit la demee ah dañoo tàkkalikoo waat donc ñoo ngi dégganteeg ñoom sant yàlla ñu ngi si suñu liggéey sant mais tàkkalikoo bi moom mënuma laa cause bi lii mais ce qui est sûr et sûr mooy am na benn aspect boo xam te dinaa wax contrat la bokk. Euh, contrat c'est-à-dire euh, non non contrat contrat parce que am na liggéey fi muy toll am na liggéey fi muy toll producteur bi siy sentir boppam nit ki di si sentir boppam artiste bi tamit na si sentir boppam même bu si sentir boppam na sentir à l'aise si liggéey bi muy def man j'aime pas di tricher nit ki si lépp looy nekk rek na nga si nekk ak satisfaction na nga si nekk ak bëgg li ngay def na nga si nekk aussi si ñu respecté la loolu moo waral suñu suñu suñu ànd loolu moo ko dëxañoon

maanaam ay ndaw yu toog lañ nii après nga proposer leen contrat ah, na leen kay signer automatiquement si euh, sur le même coup xam nga ndaw yooyu am ñoo xamante ni dañ la ne baal yóbbul ko suñuy waajur loolu yow nanguwoo loolu nga nga nga mere leen ci ci ci loolu avant loolu sax am na ay quelques détails ay problèmes yi amoon xam nga j'aime pas di ci di di ko leeral parce que ñoo ko dundandoo woon foofu donc du am solo nga ñëw ba fii di ko wax. xam nga détails yooyu noonu ak mbirum contrat yooyu comme ni ko Iblo expliqué bokk na si li nga xamante ne tamit dem nañ ak wàllum respect bi mu souligné sànq c'est très important parce que nit moom boo nekkee ak moom ngeen di liggéey mu lay jariñ nga koy jariñ aussi faaw respect di daw non faaw nga koy respecté ak lu mu nekk nekk ndaw da nga koy jox cër donc man ma nekk genre nit boo xam ne bu ma nekkee ak yow di di di di muñ Euh, bu respect dawut wala sax boo boo ko boo ko respecté wut mais ngeen dem au fur et jox ko cër mais respect ñàkk manque de respect boo xamante ne day law loolu man mënu ma ko supporter quoi loolu bokk na li nga xamante ne tey tax naa ñu ñu ñu dem. Euh, dégg nañ tamit for ci weewu béy ni euh, police am na yoon sax ci seen diggante yéen ñaar ndax ci benn son boo xam ne son bi yéen yéen a ngi naan yéen yéen a ko moom moom mi ngi naan moom moo ko moom est-ce que mën nga leeral loolu. waaw son la boo xamante ni bi ma fay nekk defoon naa ko fa mu leer képp ku fa nekk leer leen ñoom ñëpp ah ñoom ñëpp ba ñi nga xamante ne tey rejoindre nañ leen muy beneen label boo na ne ñoom jël nañ seen label seen tur label changé ko def ko foofu fekk ci woon kenn mais fekkoon na fa képp ki nga xamante ne yaa nga fa woon avant ñoom ma defoon ko fa euh, bi yàlla dogalee nag ma génn ma ci biir loolu avant avant ma koy génnee je ne pas du ma ne jaay du ma ne may

nga ay xale la rek yu nekkoon ci loxam donc ñu defoon fa son bi génn yóbbaale. donc juridiquement buñ ko bu boo leen demee ci yoon yéen amoo leen benn preuve ni que son bi yéen yéen a ko moom. bien sûr am nañu preuve parce que euh, defoon nañ ko clip foofu. clip bi ci boppam moom mu ngi ci woon ah, ak ñi nga xam mën ngeen am mën ngeen am mën ngeen am euh, clip mën ngeen génnee clip bi mais tant que yéen a ngi ci biir labelam donc son bi si label bi la génnee yéen protégé wu leen ko ñu mën a xam ne yéen yéen a ko moom. donc bu demee si yoon mën ngeen am problème dégg nañ ni sax na dem na ci yoon. waaw ñun xamuñu woon dara ay ndaw la ñu newoon ci ci ci ci ci ci ci ay loxam rek wàllum protection rek dem euh, Sodav ak yooyu noonu yëpp loolu moom la waroon quoi parce que ci ay loxam la nekkoon loolu loolu rek a tax mais loolu fekk jàngal nañu nag lu bari xam nañu tëri nañ ci ay yu bari bari bari waaw demoon nañ ci tamit ci yoon moom moo porté plainte yóbbu nu gendarmerie jékki-jékki daal woote ne. porté nañ ñu plainte am benn contact bu ñu woo nañu gendarme la après ñun par par respect ñu dem wuyu ji mais joxuñu sax convocation te mu leer nañu ne bi ñu demee si jour boobu noonu la moom la porté plainte. sànq si say wax yaa ngi tuddoo ki nga xam ne moom mooy Sidi Diop ñu ne son bi dañ ko jël euh, jox ko ko déjà balaa ñuy wax euh, ci euh, li nga xam ne moom mooy son bi yéen ban ban rapport ngeen am ak ki nga xam ne moom mooy Sidi Diop ndax yéen a bokkoon label. waaw Sidi Diop bon mën naa ne après après la ñëw quoi parce que ñun ba muy nekk GBC family <coughs> di nekk GBC production ñun ak GBC la woon boobu subateel ñëwul kenn ñëwul muy metti ñun booy yi ak moom ñu koy dund tey mën naa ne bu demee ba tur bi toll fenn fii nii malgré moom am na fu mu ñu yóbbu mais ñun aussi am na fu ko yóbbu donc ñun liggéey nañ si biir liggéey bi ñu dem ba gis liggéey bi nice ñeneen gis ko apprécier ko ay artistes yu mag comme ki nga wax muy Sidi Diop ak ñeneen ak ñeneen si la Sidi Diop ñëw intégré si la ñun ñu dem intégré euh, comment dire? Subatel musique ba ñuy intégré Subatel musique si la Sidi Diop ak Bass ak yeneen gars yi si la ñëw intégré ak ñun bokk ak ñun label mais Sidi Diop <coughs> bokkul woon Zbest production non non Subatel la bokkoon mais mën naa ne liggéey la woon liggéey la woon daal. gars moom moom moom lan la lan la xalaat ci li nga xam ne euh, moom mooy son bi nga xam ne son wu euh, prince nee na moom moo ko moom ñu jël ko jox ko waaw waaw mën naa ne moom du euh, du fautif quoi parce que du ma du ma jël toor joxo ko àdduna lañ nekk man j'aurais aimé artiste boo nekk artiste bu mag ñu lay suivre ñëpp di la bàyyi xel nga bañ di dugg si ay détails yoo xam ni da lay yàkkal wala nga bañ gis booy boo xam te ni booy bu ndaw la parce que même bu son bi dañoo ne témoin la woon man d'après après li ma jot ci information yeeg lépp parce que maa mom moom ñoo nekk lépp lu doon daw xam naa ko moom Zbest dafa génne témoin la or que témoin sonu jambour la sonu jàmbur waroo ko def vidéo donc bo demee ba def vidéo rek cela veut dire amna ko ko mom té ñun ay boy lañ yo xam te nii tey moom bu défé son ba def ko vidéo rek mom danaan moo ko moom loolu ku doon yow tamit loolu ngay wax sama son ngay wax fep nga koy présenter né sama son ñun amna ay son yu ñu fa def defuñu ko vidéo mais fu ñu tourné sa son bi yaag diw envoyé ma ko sa son bi nangam envoyé ma ko ngay dégg seen son bi envoyé ma ko donc kon du ñoo ko moomoon mais soo leen demee SODAV li ma doon expliqué sànq prince boo leen dem demoon SODAV daal di koy euh, protéger ñëpp xam ni seen son la seen tur nekk ci ñu jox leen lépp loo kayit yi nga xam ne yëpp war na ci kon booba boobaa coow du am kon nag euh, peut-être mën ngeen mën ngeen euh, accepter ni peut-être yéen yéen a xamul woon ni da ngeen waroon protégé li nga xam ne moom mooy seen ay son. waa d'accord loolu tamit dañ koy accepter mais aussi moom dina accepter tamit def na erreur parce que même moom moom si boppam moo ñu jiitu si musique moom moo ñu njëkk a xam lan mooy musique moom moo ñu njëkk a def musique njëkk ñu si art moom protégé wul woon son bi ba coow li amee commencé xëccal demal maa ngi ñëw si la gars yi suufu dem protéger ko te ñu nekk si label bu mag donc cela pas dire que ni ñun ñun kese ñoo def erreur boobu noonu donc ñoom tamit def nañ erreur boobu noonu après si YouTube lañ jaayanteeg ñun dem def euh, seen i affaire je sais pas ba ñun buñ ñu dugalee après ñu rejeté ñu parce que ñun la woon ñoo ko ñu woon def après ñu woote ñaan ñu bàyyi leen donc ñoom ñu dugal ko protéger encore biir YouTube moo tax affaire mënul dugg YouTube donc mën naa ne erreur boobu noonu ñun ay xale dal nañu mais ñoom tamit ay mag dal na leen. voilà iblo sànq maa ngi tudd euh, turu Sidi Diop di wax ni yéen.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 Sidi mbiri sax du concurrence Sidi man maa ko dàq way foog moom xam na loolu ñoom ñëpp xam na nañu loolu. yow yaa dàq way Sidi Diop. bokkul sax ñoom xam nañu loolu sénégalais xam nañu loolu comprendre nga donc mën naa ne moom sax li ma est-ce que jiitu na ma si musique parce que man tamit maa ngi ciy bëgg yàgg donc am jot naa ci am expérience xam nga ñun moom dañ dooni taalibe ñu yar ñu ñu am yar ki teggin fépp fu ñu dem soxlawut ñuy wane euh, suñu bopp wala ñuy wane lu nekk ci ñun carrément comprendre nga.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 est-ce que mën nga ñëw ci événement bi wax na la war a bon événement bi avant tout damay woo Sénégal yëpp ah, ñu waaj te ñëw te xam ne dina neex lool dina xumb waxte man ci boppam sama yaram bii dafa nam mi way donc faaw gars yi. géejewaay ngeen koy defee nag ci fan si ci fan su Sidi Diop ya. Ah, waaw Ravin moom ñoo ko foofu base moom si. yéen ay fans. sax ñoo ko foofu fans fop ñun la ñu bëggee géejewaay ñun la ñu am comprendre nga. donc euh, na gaa yëpp ñëw ñu bëggal leen ci lu neex ambiance bu bu bu am doole ah, le cinq incha allah si lañuy xam euh, ay woy dëgg Ravin mi ngi doog am yi gan waaw donc maa ngi woo ñëpp na ñëpp ñëw incha allah ñu bëggalante ci lu baax. Euh, Iblo le 5 boobu bu ko déggee damay kontaan quoi. ndax ki nga war a jàkkaarloog waa Géejawaay wane seen doole. et en fait waa Géejawaay ñoo ngi pare. ñoo ngi pare lu lu lu graw ñoo ngi pare lu graw d'ailleurs sax nii nii nii sànq rek ba ñuy ñëw li tax ñu gën a tardé nii parce que gars yi ñoo ñu doon ñoo ñu doon ñoo ñu doon téye du ñu laaj affaire na lay demee ticket yi kañ lay génn di leen wax ne ticket yi génn na na gars yi dem réserver seen i ticket ticket yi génn na prévente 2500 jours yi 3000 5000 VIP affaire génn de non le 5 juin incha allahu rabbi man ça fait un bail. dema concert dañ may invité sax ma ne la non non non non daam lu may wàcc te li ma doon wàcc noonu noonu noonu te yàlla fii la ko def la cinq juin bii nii donc la 5 juin bi musique côté hip hop musique côté musique musique côté mbalax na gaay ñëw ah yàlla moo xam li muy def de mais bu ñu bàyyi ak suñu bakkan bi incha allahu rabbi yéen ngeen fekkee ko ñu fekkee ko non di ngeen gis lu garaaw lu garaaw lu garaaw garaaw waa marché Sam waa Gounass waa Yoff sax si boppam waa Nord Foire gaa yëpp a ngi waaj. voilà balaa ñuy euh, terminer nag euh, Prince yow ak Iblo dama bëgg ngeen ñamal ñu euh, comme que nee ngeen le 5 xale yi dinañ gis dëgg waa Géejawaay dëgg googu nag bëgg naa ngeen ñamal ñu ci tuuti balaa ñuy tëj li nga xam ne moom mooy émission bi. man li may def mooy damay damay jaale Sénégal jaale àdduna. jaale suma papa Wali jaale Seydina Alioune jaale ñoom Mandiaye jaale ñëpp euh, sunu pa sunu maam Thione Seck bi nga xamante ne euh, sunu borom def na li gën ci moom di ñaan sunu borom yërëm ko te jéggal ko fi mu nekk yàlla na ko gënal fii mu jógee donc man nu may def dama koy comme que am naa occasion bi faut ko ma rendre hommage quelques minutes di aussi tamit ñaaxaale yokkaale tamit Wali ngir mu gën a Euh, gën a gën a waaw gën a gën xam ne fii daal kenn du fi des na gën a nekk ci liggéeyam aussi tamit àdduna léppay jeex wàlle muñal balaa go waaju baax ca dem na ay waale waale waale muñal àdduna léppay jeex wàlle muñal balaa go waaju baax ja dem na ay waale waale waale mu ñal ndeysaan ñu weeto weet weeto metti na yaay yaayo booyo bu xol doon gisee mer dina giif xalaan dina weet weeto weet weeto metti na aa waaw waaw waaw mooy ndeysaan adduna bi kenn du fi des loo fi mën a gis dafay jeex waale ay waale waale muñal adduna léppay jeex waale muñal ndeysaan balaa go waaju baax ja deyem na ay waale waale waale muñal weeto weet weto metti naa yaay yaaya booyo bu xol doon gisee mer dina giif xalaan dina jooy weto wet weto metti naa bon léegi yow lan nga bëgg defal la yow man maa xool lu waa géejawaay kon bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi jox leen benn kii xam nga son dafa bëri sama bopp de tellement que mooy loolu noonu <laughs> si benn aat iblo rëkk ni nawet yëngal asamaan ne ma dënd meen joobu lëndëm làmp du ko ñiit raay mi rëcc seen dënd meen su nga baax ka ni booy bi ma booy bu rëkk seen ndigg meen nekkal ful man ma nekk kenn sadik mën a ray na ma it maan eh, jarul coow garay ñëpp d'accord léegi nee nañ Massine Khadafi colonel si bopp jobu sangara sellement du dee blob judd fii sarme sama job yok sama level gagné compté sama bénéfice seen dret lay nan ama fo sam vidéo xolé ma sa batterie hello kiki business ba xëy dee na business bu ma sa dé ay million ngi ni business ba sànca ba fête sa bisu dé yow bari gobi nga pousse ko mu dem sang pousse ko mi gëna dem am line CC si nga xol ko nga bëgg nga bañ ko fi la bok jiwee laa deuk golf payay daru ñom dañu déggo sam jàpp jaxaay wàcc gt2 ey ragal ma loolu meen ragal loolu meen eh dreetu ghetto mooy daw sama yaram tey bu doon làmb may laaj joor Ibrahima ñaan eh dreetu ghetto mooy daw sama yaram iblow di gaynde njaay piir ku ko songu xam spobing waa géejawaay préparé leen incha allah macha allah dégg ngeen li nga xam ni xale yi def nañ ko fi gis nañ ne nag am nañ talent bu baax a baax a baax ñu leen di ñaanal nag bu baax bon vent ñu am carrière bu gudd ci li nga xam ni moom mooy euh, musique ñoom nag ñu leen di jox rendez-vous le cinq incha allah fële nga xam ni euh, moom mooy Ravin night club wax nañ ni ñi nga xam ne ñoom ñooy waa géej Géejawaay dinañ dégg-dégg ñëpp a ngi préparé.